professeur Babacar Samb maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi leen di fay euh, Ndeye Comba voilà nga nekk ca euh, département arab bu faculté des lettres et sciences humaines bu UCAD nekkoon ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte bokk ci coalition sénégalaise pour la cause palestinienne ñu gis ni nag mm-hmm. euh, jàppante yi tàmbalewaat na métti ci diggante Israël ak Palestine ay bakken encore di si rot déjà ban analyse ngay def si événement récent yooyu am ci diggante Israël ak Palestine bi nekk na di loo xam ne lu yéeme la loo xam ne bett na adduna bi yëpp ni mu amee lu tax mu bett nit ñi moo di moo di ne Israël dafa nekk di pays boo xam ne ñëpp xam na ne ay euh, maanaam li ñuy wax seet euh, seetlu ak euh, fagaru daf ko man lool maanaam euh, li nga xam ne bi lay mooy euh, service yi nga xam ne ñooy euh, service yi nekk ci biir di xool palestiniens yi naka la ñu toogee naka la ñu lan la ñuy def si guddeeg bëccëg avion yaa ngi naaw service espionnage yi palestinien bu nekk xam nañu fu ñu fu ñu fu mu dëkk fan lan lan lay liggéey ak lan lay def donc looloo tax bi lii amee ak euh, vraiment li ci am mu nekk di lu doy ñu tuddee ko euh, tuufaan tuufaanul Aqsa maanaam déluge de l'Aqsa moo di ndox bu tuur wax mel ne bi lee dafa ñëw walangaan Israël itam am na benn opération bu mu def pour fayu mu tuddee ko euh, épée de fer loolu itam day wane yor jaaseem di wane ne dana rey ñeeri ñëpp loolu nag yaakaar naa ne nekk na di loo xam ne lii masul am toog ba ñu naa lu mat euh, juróomi junni nit dee nañu fa loolu euh, loolu moom masul am masul am te xam nga ne fu Israël mm-hmm. temps bu ñu reyee benn israélien Israël dina rey fukki palestinien lu mu bon bon moo tax ñuy ragal ne li xew nii nekk na loo xam ne ñëwee communauté internationale bi yëpp war nañu ci taxaw ndax li ko waral moo di ne lu mat fukki at ak juróom a ngi boo xam ne bi léeg israël yi ak palestine yi tooguñu waxtaan pour xam naka lañuy ñuy doxale seen diggante israël mu ngi continuer di jël suufi palestiniens yi di ko dëkke jël seeni tool def ko euh, jox ko ay ay waa këram loolu nag ay résolution yu bari génn na ci union européenne génn na ci ONU bi ñëpp bokk mbootaayu xeet bi ne Israël warul amul droit mu jël suufi jàmbur waaye terewul nag Israël mu muy continuer lu mat ay dix mille cent euh, colonie euh, am na am na foofu yoo xam ne nii léegi suufi jàmbur la ñu ñëw euh, jël ko tabax benn mur kenn du jàll mm. diggante Palestine ak Israël wala ku laa jàll nañ xam kan la fan ngay fan ngay dem ah Israël palestiniens yu bari dañuy génn dem di liggéey ji Israël dellu siwaat seen seen dëkk loolu nag dem na ba metti ni ñu leen xoji ba nga xamee ne bile palestiniens yi dañu jékki-jékki kata ibul qasam maanaam mooy armée bi nga xamee ni bile mooy armée Hamas ñoom ñoo def opération bu mel nii nga xam ne euh, vraiment dem rey ay nit jël ay otage waxuma ne loolu dama koy rafetlu ndax deewu nit nit kenn ku nekk dafa am karamatul insaan maanaam nit am ne dignitéem reyante guerre du loolu mooy mooy mooy moo mooy régler problème bi ndax bu fekkoon ne mooy régler problème bi lu mat juróom ñaari guerre nekk na diggante Israël ak Palestine yoo xamee ne yile ñi ci dee bari na lool depuis mille neuf cent quarante sept quarante huit ba léegi te dara sotteegul looloo tax ñuy yaakaar ne euh, ñi war a taxaw ñu am doole ñi mu di États-Unis muy Amérique euh, Amérique di l'ONU di union européenne di ligue des états ku nekk war na ci dugal loxoom pour ñu jàmm dellusee nit ñu ko toog waxtaan ndax lii nga xamee ne yii lay am na ci yàqute yi ngeen di gis ci biir Gaza bari na lool am na ñoo xamee ne ñu la seen yoon newu si ay civil lañ Israël day ñëw bombarder rek na bombarder kër yi eh, ak eh, banque yi ak lépp loo xam ne infrastructure la te war a jëriñ waa eh, ñi dëkk Gaza loolu yaakaar naa ne yàq la ci côté de l'autre comme lii nga xam ne les Hamas dem na dem nañu xoj nañu ko ba moom mu def li mu def yooyu yaakaar naa ne dañu ne lu mel noonu waratu fi am waaye nag Euh, li ñuy jaaxal mooy réaction bi nga xam ne moom la États-Unis am France Angleterre Allemagne am na ñu ngi soutenir Israël ba pare taxaw ne Israël bu am na droit mu jéem a aar boppam au lieu ñu oote waxtaan pour nit ñi seet naka lañuy ñuy lii dugg ci jàmm ba ñaari état yi nga xam ne moo war a taxaw man néew ma état Israël war a am am na ba pare dafa war a am mais état palestinien tam dafa war a am te loolu la maanaam euh, mbootaayu xeet yi sa wax ci résolution yi am yëpp Israël léegi mu ngi occupé Palestine mu ngi occupé euh, sud de Liban mu ngi occupé Golan bu nekk en Syrie yooyu yëpp depuis mille neuf cent soixante sept ba léegi ah loolu tam ku nekk xam na ne li xew Ukraine moo di Russie dafa ñëw Ukraine ñëpp ne loolu jaaduwul dëkk bu nekk dafa am suufam am am am am am ay nation bu fa dëkk waaye nag benn puissance bu amul droit nga ñëw jël suufu jàmbur noot leen loolu kenn war ko nangu waaye nag ñun xam nañu ne euh, États-Unis juif yi dañ fa bari doole ñoo yor xaalis yi ñoo yor banque yi ñoo yor euh, internet ñoo yor lépp te ku falu itam presque ñoo la fal looloo tax élection yi ñëw xëy na Joe Biden def loolu waaye nag boo xoolee dëgg-dëgg ndey kumba mm-hmm. euh, yi bu ñu nekkee pouvoir rek dañ daan lancer négociation de paix mais Joe Biden ba tey def ko xam nga Euh, euh, Donald Trump moom moom dafa ñëw jël ambassade États-Unis bi ne woon Tel Aviv yóbbu ko euh, donc Jérusalem moom rek moo ko fi def nag ak yenn pays Amérique latine loolu nag day wane ne jàmm ji ñu bëgg du mën a am parce que foog ñuy tudd njaaxaanaay door a mën a àtte ñaar ñuy xeex mais boo faree doo man doo doo ko man def moo tax combat bi nga xam ne xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex nii liñ ciy gën a ragal mooy li ñuy tubaab di wax embrasement maanaam mu jéggi Israël ak Palestine balaal laal Jordanie Égypte Liban ak yooyu nga xam ne ñoo dendeek ñoom te bu boobaa itam ñee ngi joxoñ Iran ne Iran moo nekk ci gannaaw dëgg la ak du dëgg te États-Unis indi na ay bateau ak ay dëgg guerre am ak yëpp foofu bu boobaa li nga xam ne moo xewoon 1967 wala 1973 maanaam une euh, guerre totale. loolu lañuy ragal ne àdduna bi yëpp moo ci loru ndax loolu moo indi pétrole bi doon jar. Hmm. baril bi ay six dollars en mille neuf cent soixante treize. waaw dem ba vingt dollars après dem ba cent cinquante dollars ba tey jii mu ngi euh, toll ci ay soixante dix quatre vingt dollars alors que loolu nag. adduna bi yëpp moo ci roo suñu économie ak suñu euh, jëflante maanaam commerce yëpp day taxaw euh, loolu nag yaakaar naa ne bokk ci li ñu war a euh, def moo tax association yi nga xam ne dañuy défendre cause palestinienne ak ñuy défendre même Israël ñoom ñëpp li ñu war a wax mooy jàmm li ñuy def ba jàmm dellu si mais jàmm nag mu ngi amee ci ñu respecter droit kenn ku nekk ku nekk ñu jox la say yelleef yële yi nga xam ne moo mooy sa yos kenn mu waru ko jël ñu fexe itam ba tooñ jóge fi nootaange jóge fi lépp loo xam ne dañu koy def maanaam Nations Unies taxaw ne lii moo war a am bu ku ko deful ñoom ñuy yónnee ay force ñu dal sa kaw. mais euh, loolu daal moom ñu ah. yaakaar ne mooy mu indi jàmm ci diggante Israël ak palestinien yi. gëm nga ni kon jàmm war na mën a am si diggante ñaari réew. war na mën a am. Mhm. man yaakaar naa ne jàmm war na mën am te dafa war a am. waaye nag gis nga tant boo xoolee léegi ñiy gouverner Israël ma dañuy wax ne mooy gouvernement bi gën a nekk extrême droite depuis la création d'Israël en 1940 c'est-à-dire que y a les kii conservateurs yi religieux yi ñi nga xam ne juifs yi nga xam ne ñoom ne na ñu grand Israël rek la ñu xam Israël daal lépp lu ko wër Palestine yépp ci Israël la bokk Liban sax ci Israël la bokk ñoo yi Israël la bokk ñooñu bu fekkee ne ñoo nekk pouvoir te amul ñeneen ñu euh, bu dee bu fekkee ne travailliste yi lañ ñoom travailliste yi xam nañu Israël fu mu yem xam nañu naka lañu ñu war jàmmoo ndax loolu mooy andi woon sax né négociation waxtaan bi amoon ci Madrid ak waxtaan bi amoon ci euh, donc Oslo ba nga xam ne egg nañu ne ah ñaari état war na am xam bu fekkoon ne maanaam appliqué nañu loolu depuis 1999 état Palestine waroon na am. mais ba léegi amagul état li am mooy autorité palestinienne bien que nag état palestinien ñu xam nañ. yéen waa coalition sénégalaise pour la cause palestinienne est-ce que fas yéene ngeen organiser ay marche comme ni ngeen ko daan defee. pour vraiment waaw waaw loolu bokk na ci li nga xam ne moom la moom la ñu def dañuy def communiqué fexe nag organisation yi taxaw yëpp alliance bu Palestine ak euh, coalition Palestine bi nga xam ne moo dajale association yëpp ñu ngi xalaat naka la ñu dañu war organiser rapidement benn marche loolu la ñu wax ci communiqué bi ñu def alors yaakaar naa ne loolu itam xëy na du yàgg mu am incha allah. professeur ñu ngi lay remercier bu baax a baax. en tout cas ah, ci disponibilité bi ñuy fàttali ne professeur Babacar euh, Samb moo nekk chef de département arabe bu faculté des lettres et sciences humaines ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekk aussi ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte la cause palestinienne bu baax a baax professeur Babacar Samb